حيثكنا يا رب الجلال الملك يا رب كان حلم الله حلم الصلاة ومن خيار الله اغفر لنا ولمنا يا ربنا واتوب جميع المسلمين ربنا جاء خاتم النبي الله وسعر به نور الدين الله أعبد له إلى محمد نبوه ba ba ba ba mu jógee Màkka waa Màkka doon ko sareel. Mhm. te ma ànd ak Abu Bakr Siddiq te seen ca ba géej jaar ca bëgg ko màtt. naa Abu Bakr Siddiq te ko. mu màtt ko. mu ne kenn ñut gi jógee ci gémmiñ gi dal ko ci nopp mhm. bi te dugg yi. yéen su fekkoon koy nelaw mu yeewu ne waaw li lu mu doon jaaj mën na mënatul wax jaaj ne ko maa ko maa <laughs> maa ko mat dama doon bëgg a laal mu di tere. mu ne ma ma ne te ku ma ku ma lugg nga wàcc daal di ko raay rek daal di wàcc. waaw ñun ngay jigéen. Mhm. bàyyi laay bañ koy fexeel. Mhm. laaj waaw bañ bañ koy fexeel. Mhm. moom itam ke ngay jigoo loolu la eh, xool. ñëwoon ñëwoon bañ ko. maanaam maanaam bàyyi laay. waaw di ko bañ koy bëgg a jàpp bañ koy fexeel. waaw te te mu jëm dem ca ndigal ab làqukaay la woon. moom xam ndax waayam jënd ci booba booba garab la ñu bi bi ca màkk aw doj la ko woon ca màkk mu génnaat foofu nii ku ku wedd nag gën génn si da foofu nii ndax yonent bi génnoon na ca màkk tudd Muhammad mu mu dil mu mu mu dil mu dil si ci kaw bi tudd imaam waaw sëñ Tuubaa bi nga xam ne ne dem ci géej gi ba bañ bañ bañ di ko dugal ko ci gi ñu gaal gi daw ba tisbaar ñu wutam ndox di jàpp masa rafa ko bay jàpp maram bi di ci ko taatan jàpp maram bi di ba mu di ko jàpp benn benn maram ba daw jëm si si moom mën a ceex ba daal di ma naka naka ak ci ci pegg gaal gi sànni deel ba bàyyi daal bàyyi daal di ronu ron na ca ron ca bàyyi ca ron der ba tegu ci kawam ñu julli ba sëlmal delluwaat delluwaat ca gaal ba bàyyi naa delluwaat yor nekk am na laay yëpp benn lañu ku ci nekk sa morom mer na ku bég sa morom bég ñu ñoo ñëw te xàjji ko waaye ñëpp benn lañu ndax mu day julli tijaan day julli laayeen day julli xaadi day julli tijaan day woor laayeen day woor murit day woor murit day julli benn lañu waaw bëgg xaj bëgg ku nekk bëgg dara jaay boppam rek comme la ñoom ñëpp ñoo yem waaye man yaakaar naa fi ñu wutee mooy que limaam yonent la como Rasulullah hmm. ah, sallallahu alayhi wa sallam laayeen wuti naag yeneen yeneen tarixa yi hmm. waaye benn la hmm, waaw limaam kon ñëpp la représenté kon Rasulullah mi ñëw dellu kon ñëpp la fi nekkal waaw ah, ñëpp la ñëpp la ah, ñëpp la wa man saa wa man saa ankara wa man saa fali wa man saa ankara ku mu soom nga gëm ku mu soom nga wedd waaye ñëpp la Bangor nak mumling siwa. Ada yang baru. Bagai tu nak mumling, mana tak kau? Bukan tak kau, bukan tak kau. Nenek nampak bukan di di lahir tu. Mian tu, musuh ribun, muda tu usin mata. Ini mata. Mungkin mau menaikkan gol. Kalau kita ni lima mulia kenapa? toog foofu di xaar fu mu war a feeñ. waaw di war a xeet la war a. waaw waaw man. Hmm. waaw bi ma ma nga nekkoon nag. waaw fu mu nga jóge gi di soog jël. waaw waaw moo moo tax ñu war a jël sama jëm bi may jëm di jël. di jël waaw loolu la. moo tax ñu war koo gëm. man loolu sama gëm la man. waaw dégg nga. Hmm. dégg nga damay liggéey di dellu. Hmm. damay liggéey di dellu. di liggéey di dellu di liggéey di dellu. loolu la gën a liggéey yëpp ñu fekk ci sama loxo. liggéey yi liggéey yëpp. waaw liggéey yëpp ñu teg ko jënd la. ndax subaar. ñu nekk ci sama bagage. bu boobaa nag ma ci may de man. waaw. bu boobaa daal. man sama balance ba xawee kii rek. nga demoon na ma ci. waaw wax ma ci. ana ismii wa ismii ismii. waaye su waajo comme dafa la jënd bi xëy na. alhamdulilah maa ngi sama turandoo ak Masa itu untuk asin wajib. Ha. Dia nak tukar je.